mbokk yi salaamaaleykum wa ñu ngi leen di nuyu di daral euh, ñëpp jàmm ak lu ak lu làmb moo xam ñu nekk fii ak bitim réew comme ki ñu nekkal parfois li muy jokkoo ak bitim réew ci côté làmb ji bari na trop muy jaspora bi ñoom tamit maa ngi jokkoo ñoom lu bëri maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm alors Buzz Pro la ñuy wax wala Ibrahima fay Buzz. Euh, bu Lit TV wala bokk bu pay per ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog euh, ñiy seetaan ci Sénégal. maa ngi lay nuyu bu baax Pape Maguette salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu ñu ñuy seetaan yëpp à travers Sénégal di nuyu mbokki internet yi bu baax a baax di ñaan yàlla lu ñu fi nar a wax yëpp mu nekk li nga xamante ne day jëriñ askan bi. Hmm. alors li tax ñuy waxtaan moom mooy euh, luy ay di jàmbat muy pay per view pay per jur na coow ba ci combat bii ñu mujjee génn. Euh, di ji ak Eumeu Sène gis nañu engouement bi mu waroon am muy làmb jeeg yëpp mais lii nii ni coow muy engouement bi nga xam dafa amoon ci làmb ji pay per bi daf ko rey alors mu nekk coow boo xamante ni actuellement bari na muy ci côté engouement euh, ci côté business euh, dafa tombeek technologie ñëw nit ñi comprendre ñu ko wala boog làmb nekkoon làmb coow lee ñëw am lu mu nëbb yow naka ngay jàngatee coow li lan mooy sabab bi actuellement. waaw yaakaar naa jamono ji ñun dañu xaw a weex dunk rek. parce que wax dëgg yàlla Bombardier Eumeu seen du combat bi nga xamante ne Ibrahima Faye ak Buzz Pro liggéey nañ ci. Mm. structure bu ñu jiite. Mm. liggéeyuñu ci événement boobu noonu mm. Bombardier Eumeu seen mi am yàggul dara boobu Gaston Production beneen structure la ci doon liggéeyal. mais comme yàlla dafa dogal Euh, pay per view nekk mbir mi nga xamante ne ñun ñoo ko ñëkk a def Sénégal te am ci beaucoup d'expérience maanaam def ko lu ëpp deux fois ci ay grands combats ci ay combats moyens ci ay petits combats lépp lu ci am rek yaakaar naa nit ñi dañu ciy interpellé yaakaar naa ni yéen suñu ay confrères ngeen même budul Buzz Pro am na li nga xamante ne bokk nañ ko muy presse bi ak Lutte TV bi nga xam ñu ngi ciy yëngu donc lu ngeen ñu ci laaj rek faw ñu tontu leen ci donc pay per day yàq làmb man gëwma loolu mm. lu tax gëwma loolu moom mooy tey pay per view mooy tax ñuy tëgg làmb lii tax làmb di am loolu mënul yàq làmb ndax bu amul woon làmb du am pay per view ngi yegg si 2018 pay promoteur yëpp seen gémmiñ nee nañu pay per view moo tax ñu dellusiwaat ci làmb wala pay per view mooy tax ñuy tëgg làmb donc luy tax ñuy tëgg làmb mais loolu mënul yàq làmb pay per view nag dafa ñëwoon fekk làmb ci ay jafe-jafe léegi nag mu ñëw làmb suqaliku combat di commencé di tàmbaliwaat waaye nag léegi gis nañ ni que engouement làmb effectivement wàññeeku na mais qu'on se pose la question lan moo wàññi engouement làmb boobu noonu ñu fexe ko résoudre itam ku ne xam na ni ñi ñi toog seetaan làmb ci seen télévision comme ni ñu seetaani coupe d'Afrique coupe du monde loolu moo gënal ñëpp ñun ñi di wax ak yow sax loolu moo ñu gënal mais loolu naka la ñuy def pour mu indiwaat yaakaar naa waxtaan yooyu la war a am. mais nee nga pay-per-view moo tax promoteur yu bëri ne euh, dellu si ci ci làmb ñoom promoteur yi ñoo ko waxaat. mais ci ci ban côté la ci côté rentabilité. wala boog ci côté am les fonds pour organiser làmb la. non parce que promoteur bi da ñëw jël xaalisam lebi banque. wala jël fonds propre jox ay mbër avance. outil ji sponsor sponsor bi ñëw jox ko li nga xamante ni moom mooy garantie bi nga xamante ni mun na fay cachet mbër yi. mu ñëw tëgg am billetterie wam rentabiliser. mais dem mu mujj bi gis ni stade yi feesatul. Mhm. ba pare gis ni que tey ji billetterie mënul sax fay benn mbër. ba pare amatul sponsor bi nga xam moo la dañu jox xaalis. léegi il faut nga indiwaat pay per view. bu nga xamante ne bu direct bi gratuit lay ñu bëri dina dem stade seetaan yi. Mm. en même temps aussi pay per view bi indil la xaalis. te am na fi pay per yu bëri yoo xamante ne bu fayul cachet mbër bi itam fay na reliquat ba. Mm. au moins loolu am na lu bëri li nga xamante ne da koy combler. kon kon ça veut dire que pay per view. Euh, ñëw na pour euh, mën a régler lu bëri muy ci côté reliquat yi hmm. ak yeneen ak yeneen kon ça veut dire que euh, li muy li mu rentable mooy ci côté promoteur bi rek la rentable non ci côté amateur bi sax pay per view non mais amateur bi naka la mën a rentable parce que ñëw na comme ni nga ko waxee affaire dafa gën a yokk xar mi karaw dafa gën a wéetal stade yi gën a buñ ne làmb ji pay per view la gars yi kenn du ko gis ci yeneen support yoo xam ne ñoo nekk ci biir réew mi comme par exemple les autres sites internet parce que léegi promoteur bi boycotté nañ ko léegi buzz rek la ñuy liggéeyal affaire bi engouement bi dana wàññeeku. Ah, du buzz du du du buzz rek. non non c'est que buzz buzz yow yaay yow yaay yow yaay. li weex ci xam du buzz rek mais <laughs> écoute écoute écoute non attends il faut que affaire yi leer. waaw pay per view nu muy def stade. Mm. dara mosu ko def stade. Mm. on va prendre le premier combat en pay-per-view Balla Gaye de Gris Bordeaux jour boobu la Léopold Sédar Senghor njëkk a fees boobu dëgg la mm. public bu ah, Léopold Sédar Senghor am jour boobu lamb musu koo am Balla Gaye de Gris Bordeaux c'était le premier combat en pay-per-view effectivement donc foofu noonu mënuñ na stade bi wéet na. Mm. combat boobu dara ëpp ko woon affluence. Mm. ci at ci dëkk bi. Mm. ñëpp yëgoon nañu combat boobu. parce que y avait une bonne promotion. des réseaux sociaux. d'accord y avait une bonne promotion de la télévision. deuxième combat pay-per-view ban la woon Balla Gaye 2 Modou Lô. toujours stade Léopold bi dafa fees dell. kon mënuñ ne pay-per-view mooy vider stade bi. y avait aussi une bonne promotion ñëpp yëgoon nañ combat bi. Gris 2 Reug Reug troisième combat pay-per-view. Gris 2 Reug tooñu ma leen. mais ku ne xam na ni ñaari mbër yi fu ñu tolloon avant combat boobu ak. Mm. combat bu mu jàllee seen seen tur gën leen ko dégg parce que y avait une bonne promotion. et c' était un pay-per-view stade bi dafa feesoon. Mm. Gris 2 Reug Reug. mais mais ce que si Lac de Guiers 2 tamit nekkul woon foofu. Lac de Guiers 2 Boy mm. boobu noonu itam dafa fees arène nationale. pay-per-view la woon te combat boobu ñëpp yëg nañ ko. donc combat yi fi am pay-per-view yëpp stade bi quasiment fees na te yëg nañ ko. quant guy gi bi nga lim léegi ak Siteu du woon pay per view léegi la woon mais Siteu Papa Sow gis nañ pay per view la gis nga stade bi nu mel mm. benn combat moo fi feesul mm. Bombardier Eumeu Sène la mm. e lool c'est peut-être beaucoup de paramètres beaucoup de paramètres yoo xam war nañ ci waxtaan quant à tey les problématiques du pay-per-view c'est pas compliqué la diaspora a adopté le pay per tey ji ñoom bëgg nañu pay-per-view mm. tout simplement parce que pay-per-view dafa ñëw ñi jënd ñuy am lu ñu dul am mooy làmb ji la doon commencé di jeex vingt une heures vingt deux heures mais léegi yow boo ñëwee def pay per view nga commencé làmb midi boog bu dee Buzz Pro seen affiche commencé làmb midi wan la kër mbër mm. mbër bi génnagul këram ñu wan la ko wan la triplex ñaari mbër yi ni ñu jógee seen kër di ñëw ci stade bi mm. wan la seen entrée wan la seen ay cumukaay wan la combat bi de midi à vingt heures vingt une heures combat bi jeex ñu def un plateau spécial mm. de une heure de temps ou de deux heures de temps di jël ay nit au téléphone donc plus de dix heures de direct donc nit ñi fay et puis en qualité full HD wala en qualité HD donc nit ñi fay dañuy am satisfaction au niveau de la diaspora au niveau du Sénégal ah. le problème hmm. ce sont les promoteurs nañ ko wax te dee hmm. moi aujourd'hui je connais les réalités ici au Sénégal hmm. xam naa ni que tey regarder un combat lutte sur un téléphone c'est pas évident fii ñu bëri amuñu ay smart TV ñu bëri amuñu connexion internet bu baax dans certaines régions ah. dans les zones reculées la solution c'est la TNT TNT bu duggee man je vends moins au Sénégal mais man j'ai dit promoteurs yëpp ils sont témoins je leur ai la solution est la TNT man bës billahi wallahi taalahi ak ñi ñuy liggéeyal yëpp ñu xaalis bay séntu ni que nañ gañe xaalis ba lor doomi aadama yi mm. xam nañ ni que la satisfaction des Sénégalais mm. pour ñu atteindre ko au niveau local même bu internet bi baaxee il faut qu'il y ait la TNT ou bien qu'il y canal mm. de telle sorte que fii les gens vraiment dafa métti ci ñoom mm. fii diaspora bi ni ñu miinee wàllum internet maîtriser ni ñu koy defee seen ay téléviseur mm. maîtriser ni ñu koy defee ci seen ay ordinateur mun ko projeter seetaan ko en grand écran am une bonne qualité bu leen jox full HD mu bañ a tag benn yoon loolu diaspora bi rek ko am ici au niveau local mois j'ai dit ça à tous ces promoteurs ne leen aller travailler avec la TNT. Donc, moi, j'ai même discuté avec Sidi Diagne. Mm. Est-ce que pour que, pour que vraiment nous mm-hmm. récupérions tous ces événements la j'allais ko ci TNT bi bu ko défé Sénégal du fi nekk di compliqué mm. man dama lamb day am damay sonu pay dañ may wo mairie dañ may wo mënuma len expliquer internet et ils veulent regarder la lutte mais c'est compliqué mais je leur dis travailler avec Sidi Diagne de la TNT travailler avec Escaf mm. au niveau local pour ñi nga xam ni ngi sont dans les zones reculées te am TNT ñooñu fay bu ñu fayee ñu activer leen seen décodeur une chaîne ñu mën a seetaan mais ça wax naa ko promoteurs yi léegi lu tax engagé wu ci est-ce que c'est une question de pourcentage est-ce que c'est une autre question. est-ce que du ñuy am ci pay ñu non man je tey aujourd'hui man li ma fi maitrise ci pay-per-view nit maîtriser wu ko. 22 mm. événements pay-per-view laa def maa ko fi njëkk def Sénégal. liggéey naag promoteurs yëpp. Mm. man gëm naa ni ku liggéey ak TNT liggéey ak Buzz Pro boole ñaar yi. ñi am TNT fii seetaane TNT. ñi amul TNT dugg ci internet li ngay gagné ci xaalis mooy ëpp boo demee Buzz Pro kese. mais promoteur bi moom événement bu ko neexee mu ne liggéeyuma ak TNT. mais man sama gëm-gëm mooy le meilleur business model. pour les grands combats. pour noppal sénégalais yëpp une bonne fois pour toutes. c' de travailler avec la TNT. et de travailler avec Buzz Pro. si c' dans le digital yow pay per view internet da ngay problème da may woo ba pour ñu expliquer la pour nga dugg te pourtant tu es tu intellectuel qui maîtrise l'internet mais tu as des problèmes donc promoteurs yi pour ñu mm. yombalal mbir mm. man je fais lance un appel aux promoteurs mm. qu'ils travaillent avec la TNT et avec Buzz Pro Buzz Pro gère internet bi TNT gère ici au niveau local Sénégalais yëpp seetaan ko seen télé comme ni ñu ko doon seetaanee donc le problème c'est Euh, lan mooy intérêt bi parce que gis nañu tey ñu liggéey ak yow ay promoteurs yoo xam dañuy liggéey ak yow bu subaa ñu liggéey keneen Gaston def na ko Luc Nicolaï def na ko Pape Thialis Faye def na ko Pape Abdou Fall def na ko euh, lan mooy problème bi lañuy am fee moo ëpp wala wala nu mu demee waaw xam nga nag làmb nag dafa xaw a doy waa waaw booy xaw a liggéey bës mu nekk benn booy bu ndaw boo xam dafa jógi ñëw nekk fi Sénégal jàngee fi yaroo fi dem Canada jàngi mhm. ñëw bëgg làmb rek waaw bëgg a rek moo ko dugal ci làmb man li may def nii bu ma ci amul woon cent franc itam mhm. yaakaar naa ni dama ciy nekk mhm. parce que lu TV tey naa ko 14 ans ci ren bi ma ci commencé fayee ko motul 6 ans bu ma koy def di ko entretenir pendant plus de huit ans xaw ma woon ni day génnee xaalis. loolu xam naa dara. il a fallu am na a fallu il ñu yegg si en 2016. pour nit wax ma ni xanaa yow li nga xamoon ni li ngay def nii depuis huit ans lii mun na génnee xaalis si YouTube bi <laughs> ci laa ko professionnalisé. donc man li may def ni passion laa ci duggee. Hmm. mais Sénégal da ngay ñëw di liggéey mu am ñeneen ñu ñëw ci ginnaaw naan booy bi da leen di dóor booy bi da leen di nax. Hmm. booy bi da leen di sàcc. Hmm. booy bi da ngeen def nii ñu leen dóor et alors que pay-per-view vraiment kuñ ci dóor yow la neex mm. man de kenn mënu maa dóor ci pay-per-view mm. Mm. techniquement donc am na promoteur liggéey ak yow mu am ñu leen di influencer ñu na promoteur yoo dañuy liggéey yow jàpp ni que ce que tu demandes en terme de pourcentage dafa bari business la ñoom moom seen événement da nga leen koy nangul bu ñu gisee ni que yow li ngay laaj en pourcentage dafa bari ñu dem seeti feneen donc comme ni nga ko waxee Euh, suñu suñu man sama maam Gaston sax laay wax. Hmm. parce que na ma maam vraiment. liggéey nañu ñun ci Lac de Guiers 2 Eumeu Sène mu nekk une très belle réussite pay-per-view hmm. diaspora lañ ko defoon hmm. Sénégal kàddoom di ko jiitu woon mu maye ko. après mu dem liggéey yëg moom ak structure am ak beneen structure. ci Sa Thiès Moussa Ndoye malheureusement amu ci woon lu ko neex. mu dellu siwaat jox ñu Balla Gaye Bombardier ñu def ko itam vraiment macha allah dégguñ ci benn bruit Eumeu Sène Bombardier mu dégg beneen structure bi nga xamante ni moo ko gën a doy parce que business la mu dem liggéey ak structure boobu loolu kese la. Luc Nicolaï ak structure am Luc Nicolaï and co business moom lañ ñu ko defal prix prix ba liggéey de Gris Bordeaux wëlbatiku Gris de ñu ànd ceeg moom liggéey ak moom. mu wëlbatiku bàyyi ma ñoon xoyantaan beneen structure la ci àndaloon mais après boobu sax dafa jur coow boobu boobu dafa ci ñun liggéey ñun pour Modou Lo Ama Baldé mhm. donc fu mu toll nii Buzz fu mu newoon la nekk mhm. donc Buzz Pro tamit pourcentage bu muy demandé boo gisee mu élevé mhm. c'est parce que dañu bëgg réussite et dañu bëgg lu ñu jox sénégalais yi mu nekk li nga xamante ne c'est de qualité on dépense énormément dans nos événements en pay-per-view moo tax on réclame que itam doo ñëw dugg ci ay def ko ba pare doo ci génn waaw parce que tamit on fait beaucoup de frais loolu moo tax tey on arrive à atteindre certaines ventes mm. donc certaines ventes du mois tey boo gisee euh, suñu événement yi on a une base de données mm. d'abonnés mm. Lutte TV rek promotion bu muy def Lutte TV c'est 700 sur YouTube ah, sans compter les abonnés sur Facebook si ñu yéen da ngeen ñuy jàppale les réseaux sociaux vous avez énormément d'abonnés surtout Sénégal da ngeen ñu jàppale naturellement aussi on a une base de données de mail dans la diaspora des dizaines de milliers de mails ay mails yu bëree bëri ñoo xamante ne dañu intéressé wu parce que seen affiche fait saa yéen def événement dañuy rek ñu yónnee leen rek ne leen jënd leen mm. ak ay numéro téléphone yu bari yoo xam ne dañu intéressé wu par ñun ce qu'on fait saa ñu def événement dañu ñëw rek yónnee mais mais lay ñaata lay tourner autour de. non ça ça ça dépend des bu fekkee des événements. ça des millions. non da koy non millions yu bari. 10 millions am na événement yu ëpp fuuf ay 20 millions ki 30 millions. de ko en tant que yow miy def pay per view. en tant que man miy def pay per view. moo tax ngay ngay am xaalis bu bari. boo dépensé wul mais bande passante bi plus que tu as du monde. plus tu consommes. donc nous si on veut atteindre des pays pourvus avec cent millions. Mm. mais on on dépense énormément waaw léegi nag yaa a d'autres yoo xam dañuy ñëw tamit ne faa ne pays promoteur bi booy bi da leen di nax frais yu mu am nii yëpp demeewul noonu. Mm. Mm. ñoom ñu ne non frais yi mën na gën a tuuti. Mm. ñu ñëw nag defal promoteur bi frais yu tuuti frais yooyu koy rey. soit du jaay. wa ilaa bu jaayulee day am ay problèmes techniques. mais am na promoteur bu ne jaay na plus de cent millions waaw ah, loolu mun na nekk mais mun na nekk parce que ñun jaay nañ plus de cent millions Beuz Pro jaay na fi vraiment ci événement plus de millions. non du ma ko wax. du ma wax combat bu ñu jaay <laughs> parce que des fois da ngay am accord de confidentialité ak mm. certains promoteurs te mm. doo divulguer mm. mais mënu ma la wax am na combat yu ñu jaay plus de cent millions. vraiment mais à part ñun yeneen structures yëpp kenn dépassé wu ci millions. ba ci combat yi mujj kenn dépassé wu ci 15 parce que ñun même am na structure yu fi def pay per view. Hmm. am na structure yu bëri yu fi def pay per view am na léegi 5 6 structures yoo xamante ne gars yi léegi dañuy dégg. rek neex na léegi dafa bëri quoi. ni neex na rek gars dañuy dégg fu nekk benn informaticien. dégg ni affaire bi neex na rek ñu daw njëw. mais et puis c'est bien. Hmm. c'est très bien. parce que pour qu'un milieu. pour que mu mun a évoluer il faut mu am concurrence une concurrence nag saine am na ci ñu ñëw mm. je les félicite au passage wax wax ju rafet mm. ñëw ne dañuy yokk mm. xam-xam bi fi nekkoon mais am na ñu ñëw ñoo xam dañuy wëlbatiku dem ci promoteur yi di leen di limite di ñu saaga di ñu wax wax bu ñaaw mais discours boobu laa mënul d'accord mais ku ñëw ne na ngay ñëw pour évoluer les systèmes bi mais loolu dafa rafet léegi nag c'est le CNG le ministère du commerce pour protéger les consommateurs et les acteurs de de contrôler yow est-ce que da pour def li fi Buzz Pro di def. Mm-hmm. wala est-ce da ngay ñëw pour def lu ëpp lu fi Buzz Pro di def wala est-ce da ngay ñëw pour def lu gën a bon wala lu lu yées lu fi Buzz Pro di def. Mm-hmm. bu nekkee da ngay ñëw pour détruire le système mais ñu écarter leen. Mm-hmm. il y a des moyens de contrôler est-ce qu'une personne ou bien une structure est capable de faire un bon pay per ou pas. parce que yooyu y a des moyens techniques pour xool say serveur xool tey régulariser quoi xool say technique du entreprise bu ñëw rek ñëw mais parce que ci système boobu lañ nekk léegi da gis benn entreprise man toog naa promoteur mi wan ma ku ko pro kii bu ko ne man pare naa sax pour defal la ko gratuitement ah parce que gars dañu bëgg a bokk rek léegi nag xam nga nag gars yi mooy metti hmm. ñoom ñëpp dañuy bëgg a bokk bu ñu ñëwee nag ndeysaan hmm. ñëw dóor affaire bi perte ci ay millions affaire du caaxaan ñun vraiment on a beaucoup galéré avant d'arriver ah. au niveau où on est aujourd'hui ah. léegi nag euh, li may jeexale mooy lan ngay wax ñu naan euh, buzz buzz sax moo tax ba yenn site internet yi mënatuñu liggéey ci làmb ji waaw xam nga léegi da ngeen di du intérêt da ngeen di jaxase da ngeen di jaxase benn wax non dama la laaj dama la non non non waaw ñun dañuy <laughs> man bokkuma ci non yow tu es mon frère <laughs> bokkul sax bon même même bu boo ko waxoon sax non waxal noonu sax on est dans un débat quoi waxal da ngeen di jaxase waaw da ngeen di jaxase parce que je suis à la place de voilà exactement on est dans un débat xam nga gars yu bëri hmm. dañuy ñëw pay per view dafa tombé ak jamonoy digital léegi problème yu bëri yi ngay dégg c'est pas des problèmes de pay per view hmm. c'est plutôt des problèmes en promoteurs yi léegi ñoom ñoo gëm contenu promoteur bi day ñëw tëgg laam làmbam ne sama chaîne YouTube laa am. ci sama chaîne YouTube laa koy dugal. pendant trois jour comme ni ko Gaston Mbengue defee pendant trois jour amul benn tele bi am droit dugal sama vidéo mm. léegi nit ñu déen ko pay-per-view mais du pay-per-view Gaston production moom moo ko waxal ci gémmiñam dafa am chaîne YouTube am boo xam léegi moom dafa bëgg balaa mu ñuy jox vidéo yi mu jox ko YouTube am. y a un conflit d'intérêt. waaw y a c'est ça moom mu am chaîne YouTube am léegi bëgg chaîne YouTube am. Ah, garde priorité bi waaw léegi ñun moom am na ci droit. il a parfaitement le droit de dire man sama làmb maa ko tëgg maa ko moom. Hmm. kenn du duggu kenn du filmer defuma ko sax pay per view mais léegi su ma paree man maa koy dugal sama YouTube. wala direct ngeen ko séance sama YouTube keneen du ko filmer am na ci droit mm. mais loolu gars yi dañu foog nag buzz te du buzz buzz pay per bi moo ko intéressé mm. te gis ngeen sax la preuve buzz du liggéey promoteur sax promoteur ñëw appliqué ko buzz du liggéey promoteur promoteur ñëw appliqué loolu mm. ñëw ne sama chaîne YouTube rek ay jàllale affaire bi mais loolu lu ma ci mën mënu ma ci dara comme aussi ki toog ci télé ba muy Bécaye Mbaye il a le droit aussi de dire ñun dootuñu ñëwati ci làmb ji parce que lii arrangé wuñu tu vois un peu donc bu juboo rek mais dama ne ñaari nit yu xuloo yoo xamante ni démb bu ñuy ànd fekkee woo. Mm-hmm. bu ci kenn dugg. bu ci kenn dugg maa la wax lii per Gaston père Bécaye dinañ toogaat juboo ñu toogaat bokk benn plateau. père père Bécaye père Bécaye animé laat père Gaston émission am ñu ñu pare de Gaston Bécaye Bécaye ne ko Gaston sama xarit la ñii ñi moo ñuy jaxase rek ah. mënuñu dara Gaston wax benn chose non non waaw ñoom ñoom ñaar kenn mënul leen def ba du duñu àndaat làmb coow ju ne am na fi mais père Gaston ak père Bécaye benn lañu wax yu ci ti am yëpp suba day jeex ils vont se toujours trouver c'est juste une question d'intérêt actuellement parce que kii def na émission bëgg émission baax bëgg vidéo bi hmm. que di xool seen YouTube am mais demain ils vont trouver un consensus dinañ ànd ak juboo ku ci wax nag yaa ci des kenn xajul seen diggante kenn xajul seen diggante Bécaye mbay am na droit sànni xeer gaso hmm. Gaston am na droit sànni xeer Bécaye mbay te bu ci kenn dugg nag bu ci kenn polémique nañ leen bàyyi noonu rek euh, foog naa ne war li ñu waroon waxtaanee l'essentiel waxtaanee nañ ko xam naa on se donne rek xëy na situation dina décanté wu ak tamit ñu gën a professionnaliser le milieu pay-per-view parce que ñi ci rax bari nañu trop. ñi ci rax bari na Pape Mbaye man li may wax rek mooy làmb jot na ne ñu def les vraies assises de la lutte. Mm. ou bien un mois de réflexion. Mm-hmm. ñu woo borom xam-xam yëpp man je n'ai pas peur des débats. Mm-hmm. fii gars yi gënuñ ma nekk amateur làmb gënuñ ma bëgg a làmb mm-hmm. man jóguma pour taxaw yàq làmb ma promoteur yu bëri waxtaan na ñu ne ma ah ñun kat ñu ngi waxtaan ak sponsor yu mën a may làmb direct may leen alhamdulilah loolu moom mooy objectif bi ñun loolu la ñu bëgg dañu bëgg làmb delluwaat fu mu nekkoon boobaa nañ promoteur yi mais làmb yi direct ñun ñu def pay à côté pay per view bu ñuy def ñun léegi ñuy wane kër mbër yi di wane yeneen ak yeneen tey possibilité mun na am sax promoteur bi ñëw trouver sponsor mu jënd làmb ji direct man ma def pay per boo xamante ne da am possibilité di gis cumukaay mbër yi di gis yeneen affaire di am plus ki nga xamante ne mooy seetaan ca télé ba mm. donc ñun on n'est pas contre l'innovation mm. mais problème mooy làmb amuñu xam-xam. xamuñu lu ñuy wax dañuy toog seen kër di wax rek. nga gis kuy ndigee ci làmb toog jël ay affaire jël la def la noonu di wax lu ko neex te xamul li nga xamante ne ñun moom la ñuy def. Mm. te xamuñ ni ko tey demal nga laa tous les grands c'est pas pour rien que aujourd'hui tous les promoteurs font la même chose man mm. am na fi promoteurs yu mag yu fi doon xas pay per view ñoom ñëpp ci pay per view la ñu mujjee ay promoteurs yu mag yi ma toogal ñu xas pay per view te bu ñëw man contrat fàtte woon nañ sax jour bi ñu doon xas pay te mën naa la wax date bi heure bi mm. ak fi ñu ko waxee mm. jërëjëf wa salaamaaleykum wa rahmatullah ñu koy jaajëf Ibrahima Faye Buzz euh, bu Lutte TV euh, pay ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sénégalais xëy na liñ fi waxtaanee yëpp am na ay astuces yoo xam ne jëlee ngeen ko fi mun nekk loo xamante nii dina leen gindi ci lu bëri ci lu wàllu ci wàllu euh, pay per bi moom itamit ñu koy remercier ci disponibilité bi ak itamit yaatu bi ak ubbeeku bi ba gindi nañu lu as euh, ci wàllu euh, pay-per-view Edma ñu ngi lay jaajëfal borom fromage bi <laughs> di jaajëfal góor gi caméraman mbokk yi jaay ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.